بالمبرات أمسدت طيب نفسي كي أميل لها واولت ميل قلبي للهديات وخاطبتني بما يدعو لغذبتها وأزغرت صدق وعده بالرقيبات تورا تديني وتوليني دوائسها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 saddid lisaani nawwir janaani safi amaani wasid baraa'i assalaamu aleykum wa rahmatullahi ñoo ngi sant suñu boroom tabaraka wa ni mu yellee ci jëmmam ji te as njaamam lottu ci lool di julli tey sëlmal ci sayidul kawnayni wattaqalayni walfariqayni min orbin wa ajami sallallahu alayhi wa sang boobu nga xam ne mooy sangum ñaari way di ci bopp itam nit ak jinne di ñaan xéewali yàlla ak jàmmam yàlla na ko yàlla def ci moom moom mboolem ay ñooñum ak ay saxaabaam waaye di julli tey sëlmal ci sang boobu di ñaan mboolem xéewal yooyu yàlla na yàlla def ko ci moom ak mboolem ña ko toppoon ak ña leen topp waaye di yeesal suñu pas-pas ak suñu jaayante ci Sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul di ñaan xalifa bi nga xam ne moo fi nekk te wutu Sëriñ tubaa di jëwrinam ci kaw suuf mu cheikh mouhamadul muntaka yàlla yàggal ko yàlla wéral ko yàlla mottali mbooleem ay naalam yi nga xam ne fas na koo yéene liggéeyal umma islami bi waaye fas yéene ko liggéeyal Serigne Touba yàlla mottalil ko ko incha allahu taala mbokk yi nuyoo boobu ak ziyaara boobu moom la ñuy jox ki nga xam ne sunu borom tabaraka wa taala dogal na tey moo amee jataayu xadra malikiya mu a cheikh Aboubacar Sy Mansour waaye nuyoo boobu ak ziyaara boobu moom lañuy jox baay Cheikh Mahi mi nga xam ne moo amee jotaay maam Cheikh Ibrahim Niass waaye moom la ñuy jox baay Cheikh Tidiane mi nga xam ne moo yilif kër maam Abdullahi Niass waaye nuyoo boobu ak ziyaara boobu moom la ñuy jox maam Thierno Bachir taal waaye moom la ñuy yóbbu Canaba moom la ñuy yóbbu Njaasaan moom la ñuy yóbbu ci mbooleem kër yi diine yépp mboolem turuqu suuf yi fu ñu mën a ne mboolem kilifa diine yi fu ñu mën a nekk ñoo ngi leen di nuyu ñoo ngi leen di ziyaara di leen baalu xaq tey ñaan sunu boroom yàggal leen ba ñu mottali boolum seeni naal mbokk yi ñoo ngi nuyoo fi ñu baaxoo nuyoo waaye nuyoo bi nga xam ne moom lañ baaxoo nuyoo te mooy nuyoo lislaam nuyoo lislaam boobu nga xam ne moo tàmbalee ci jàmm te jeexee ci barke mooy nuyoo lislaam boobu nga xam ne waa aljanna ëllëg bu ñu demee aljanna moom la ñuy nuyoo waaye nuyoo boobu nga xam ne ci baatam yooyu mu tëggoo moom lañu ko alayhi salaatu joxe te mooy asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu mboolem koo xam ne yaa ngi lu tey jàkkaarlu ak suñu jëmm di topp télé bi nga xam ne mooy réew Rewmi TV rawatina seen émission bi nga xam ne mooy keppaaru mag ñi ñu baaxoo leen cee nuyu dimanche bu jot incha allahu taala di ci ànd ak yéen 22h euh, ba minuit ci keppaaru mag ñi muy émission bi nga xam ne yéen a ngi koy am dimanche bu jot muy waxtaane mboolem suñu mag ñi nga xam ne ñoom ñoo taxawu lislaam bi waaye ñoom ñoo ñi nga xam ne li yàlla yónni yoon yonent bi aleyhi salaatu ginnaaw yàlla ñoom ñoo tax ñu jot ci waaye ñu di leen fàttali ko ci seeni i jikko waaye seen i askan waaye seen i jaar-jaar waaye seen i mbind ñu baaxoo ko am dimanche bu jot baaxoo ko ànd ak seen bokk sañ baara Mbàkke ñoo ngi leen ci nuyu nuyoo boobu nga xam ne mooy nuyoo lislaam bi waaye di ñaanal it euh, mboolem kilifay kër gi ñaan suñu borom sàmm leen te kàttanal leen ba naal yi nga xam ne naal nañ ko ci liggéeyal ko umma islaam bi waaye liggéeyal ko société bi suñu borom kàttanal leen di ci jiital alxaaji Mbagnick Diop président waaye di ci teg ki nga xam ne moo jiite liggéey muy alxaaji Moustapha ki ci gën a kawe ba ci man mi ci gën a suufee mbokk yi xam ngeen ne niñ ko baaxoo dimanche bu jot bu ñu fi teewee fàttaliku kenn ci suñuy mag ñi nga xam ne li yàlla yónni woon yonent bi aleyhi salaatu wasalaam ñoom bay nañ ci seen waar wu rëy rëy rëy rëy tey kan lañ ci jukki muy kenn ci ñi nga xam ne liggéey bi nga xam ne liggéeyal nañ ko lislaam laa shakka amul sikk sàkk ci ne kooku buñ ko tuddee kenn ku ci nekk xam na ni liggéeyal na lislaam liggéey bu war ñu di ko fàttaliku waaye di ko jàngataat di ko indi ci pénc mi muy kan a Cheikh Abdoul Ahad Mbacké bun Cheikhul Khadim radiallahu anhu bun maam ma bun Jaxate mi nga xam ne mooy way juróom wu jigéen a Cheikh Ahad mbokk yi mooy ki nga xam ne tey moom lañ war a fàttaliku ci lan lañ koy fàttalikoo mooy kan waaye lan moo doonoon ay jikkoom waaye liggéey bi nga xam ne liggéeyal na ko lislaam ci ay atam yu néew yoo xam ne defal liggéey def na ko ci ak dundam waaye réaliser fii ay réalisation yu am solo yoo xam ne suñ waxtaanee ak dundam da ngay jàpp ne li mu am ci at ëpp na téeméer te sax jegewu ko kooku lañu fas yéenee fàttaliku moom mooy kan doy na sëkk ñu ne doom doomi Serigne Touba la xaadimu rasuul xam ngeen ne réew mi képp kuñ fiy waxtaane di ne yi Cheikhul Xadim la kooku alxani ani taarif la kooku doy na sëkk ci ñu xamle ko mooy kan góor ga demoon Gabon yomb naa xamle mooy kan ka julli woon ca géej ga borom jàkkee ndox ji mooy kan doomi Maam Mor Anta Sali soxna jaara mooy kan mooy ki sancoon Touba mooy kan mooy borom juróom-ñaari soorool ya ca Touba mooy kan mooy borom baraag bi ni ko Cheikh Mame Fadda tuddee woon a Cheikhul Khadim daal yomb naa xamle ci réew mi mooy kan mooy ki nga xam ne moo sos yoonu murit lii ñuy wax al muridiya mooy ki nga xam ne moo ko saso moo ko sosoon ci atum 1883 doomi Cheikhul Khadim la waaye doomi soxna Mariama Jaxate la soxna Mariama Jaxate mooy kan mooy ki nga xam ne moom la borom daarul moom la seexul xadim waxoon borom daarul moxti ne ko man de sama boroom daf ma jox ndigal ci ma dëkkoo soxna soo xam ni ca néeg ba muy bokk ay boroom ay gor lañuy doon waaye ñu am diine la doon ñu man alquran la ñuy doon waaye ñuy dundee seenu ñaq lañuy doon boroom daarul moxti yi bi muy topp loolu di ko topp ba yàlla dogal ñu tegtal ko kër Maam Moor Asta Jaxate bi yàlla dogalee mu dem fa ngir bëgg a sàkku ji loolu liy wane ne ñoom ci jom ak ngor ak nangoo jaamu yàlla ak man alquran naka jekk ci lañ leen xamee bi mu demee fekk maam Modou Asta fatu biñ ko yëgloo ne ko am nga gande borom Daaru Muxti moo fi ñëw daf ne na ko may ba mu eggalee dogub alxuraanam ba mu noppi nga xam ne ci farlu gi ak diggam ak boroomam amul lu ci mën a jaar moo tax mu am dogg gu toll de eggale la mu war a def muy sas wi nga xam ne moom la amee woon muy wax waqfu bi nga xam ne moom la amee woon bis bu seen ngir jàng ko ci alquran daf ne nañ ko may ba mu àggale ko ba pare door a gisee ku muy mën a gisee te moo ne boo borom Daarul Muxti Cheikhul Xadim radiyallahu anhu moo ko yónni bu doon nag ci murit yi léegi soo déggee ñu ne boo doon julli sax sëñ bi woo nga dagg julli wuyu ko. wala sax soo doon jàng alxuraan ñu ne diw da laa soxla nga bàyyi la ngay def wuyu ji ko waaye ñoom mag ñi fañ tolloon ci seen boroom waaye xam giñ xamoon seen boroom waaye ñàkk boole giñ ko ñàkk woon a booleeg dara wéetal giñ ko wéetaloon moo tax seen digg ak seen boroom amul lu ko mën a yàq amul lu ci mën a dox nga xam ne ñoom dañoo bëggoon yàlla xam yàlla bëggoon Sëriñ Tuubaa waaye toppee koy sago mooy xam lenn lu ci nekk ak la ca war ak lañ ca war a def looloo tax maam Modou Asta Jaxate nii la def mooy dafa àggale dogub alxuraanam ba noppi door a génn gisee ak maam borom Daarul Muxti yi bi mu ne ko ku tedd kee ma yónni moom kat daf ne dafa soxla woon sunu borom daf koo jox ndigal ci mu dëkkoo soxna soo xam ne fam yi bokk ay gor la ñuy doon ay jullit la ñuy doon ay jaamukat yàlla la ñuy doon ay waa ñu man alxuraan la ñuy doon soxna soo si day mokkal alxuraan waaye ay way juróom yuy dundee seenu ñaq la ñuy doon bi mu demee wax ko loolu maam Modou Asta daf ne ko yii la yii mu la yónni yëpp rek yàlla dogal na daje na fi ndax kat ca jamono boobee ca tund woowee mbooleem ko fa jaaxle ci dund maam Modou Asta mii mooy ki la daan dimbali ci ab dund moom mooy wayjuro maam ma Jaxate mii nga xam ni moom laa Cheikhul Xadim radiallahu anhu dëkkoo woon ba am ci a Cheikh Abdul Ahad Mbakke mii waaye mu bokk ci askanu euh, waskanu mbaakool mbaakool yit di ñuy xam ci réew mi yaakaar naa ne toog fi nag di waxtaanee nan waa mbaakool nii la ñu mel ci mbaax nii la ñu mel ci jaamu yàlla nii la ñu mel ci gore loolu moom daanaka mën naa ne matu ko ndax boo ne Mbakol ab Mbakol Mbakol la rek dafay leer ci ne la sëñ Tuubaa waxoon ci ba muy sàkku soxna su mel noonu. ba yàlla dogal mu am ci maam Mariama Jaxate nii ba Cheikh Abdoul Ahad gane ci àdduna soo ne waa Mbakol ñooy ay way juróom rek ku xam loola da ngay xam ne kii kat as la ab jullit la mën a doon waaye ab jaamkatu yàlla rek la mën a doon kañ la gane àdduna atum bal shachin moo tolloog 1332 ci hijriya ci hijriya fan njaareem yamook le 14 septembre 1914 le 14 septembre 1914 ci njaareem ci soxna maam ma Jaxate mi keroog bi mu ganee àdduna biñ dikkee wax ko sëñ Tubaa sëñ Tubaa dafa caa waxoon lu am solo am solo am solo sëñ Tuubaa dafa waxoon ne am naa yaakaar ci moom lool daf ne nañ ko jox aw tur nuñ koy tuddee nañ ko tuddee Abdul Ahad Abdullahil Ahad waaye yee sëñ Tuubaa waxoon ci moom bis bi mu ganee àdduna rek doy na sëkk ciy ngëneel sëñ Tuubaa képp kum ne am naa yaakaar ci moom daf ne nañ ko teral mboolem lu ñuy defal teraangay ku ñëw àdduna mboolem luy teraanga ju dagan nañ ko ko defal ndax damaa am yaakaar ci moom ci liggéey bii ma sama borom di liggéey loo tabaraka wa ci la waxoon ne tuddee naa ko abdullahil ahad daal ciy wax ne ku man turam wi suñu borom du la lakk tabaraka wa moo tax nga dégg ñu ne siiw na ci keroog bi mu ganee àdduna miiri njaareem yi dañ ci doon bind turam wi ngir bëgg képp ku ko ku mën a liir boo ko liiree man tur suñu borom tabaraka wa taala jaare ci jéggal la abdullahil ahad la tudd moom la Sëñ Tuubaa waxoon ne képp ku man aw turam doo lakk moo tax bi mu ganee àdduna bi bisub altine ci atum 1914 le 14 septembre 1914 ci njaareem Sëñ Tuubaa Xaadimu Rasuul waxoon ne nañ ko teral mboolem luy teraanga ju dagan nañ ko ko defal ndax kat damaa am yaakaar ci moom waaye kan la ko tuddee alayhi salaatu wasalaam sëñ tubaa mboolem ak njabootam ñëpp alayhi salaatu wasalaam la mu tuddee mouhamadul moustapha mouhamadul fadil mouhamadul amin mouhamadul bachir moom mboolem ay turam ay doom ay njabootam alayhi salaatu wasalaam la leen tuddee looloo tax abdul ahad abdul xaadir mboolem tur yooyu yëpp ci alayhi salaatu wasalaam lay dellu waaye tur yi ñu ko tuddee mooy tur wi gën ci tur yi ndax xam ngeen ne alayhi wasalaam nee woon na xayrul asmaa yi maa xobi maa obida aw xomida li gën ci tur yi mooy tur woo xam ne ci abdu lay commencé wala xamd day laal ci abada wala am wala hamda la mooy abdullahi lay doon wala muhammad wala ahmad wala hamid wala yu ko niroo kon ki yàlla tànn ci jaamam ñi ngir mu yor liggéey yonent bi aleyhi salaatu moo ko meññ muy xaadimu rasul waaye tur wi gën ci tur la ko tuddee muy abdul ahad kon mi ngi gane àdduna altini wala leen di le 14 septembre 1914 ci njaareem sëñ Tuubaa tuddee ko Abdul Ahad wax ni kuman turam yi suñu borom tabaaraka wa taala du la lakk fan la jaar ci wàllu njàng alxuraan xam ngeen ne li doomi soxna yi baaxoo mooy bu nit ki bu gane àdduna wala sax li doom yi jullit baaxoo léeg-léeg ma dégg ñu ne doomi soxna ma ne doomi mboolem ku judd doon ab jullit doomi soxna nga waaw mboolem ku judd doon ab jullit doomi soxna la mboolem sox jullit ñépp ay soxna lañ kon lan la doomi lan lañ war a defal doomi jullit mooy bu gani àdduna dañ koo war a li war a jiitu ci moom mooy ñu jàngal ko alquran tabaraka wa taala alquran yi borom bi tabaraka wa taala ndax loolu borom risaala boo demee daf ne xol bi nga xam ne moom lañ gën a yaakaar aw yiiw àgg ci moom tey sax ca mooy xol bi nga xam ne alquran dafa waxe suñu borom tabaraka wa dafa jiitu ci moom kon a Cheikh Abdoul Ahad foofu la ko jur yi jaarale mooy bi matee jàng alquran a Cheikhul Xadim ci rawam rek a Cheikhul Xadim radiallahu anhu moom moo ko dalalal boppam waaye lii lay xamal ne a Cheikh Abdoul Ahad am njàngam dafa barkeel danaa ci dikk ci kanam mooy ku Cheikhul Xadim dalal danga man alquran te danga ko dégg ndax moom moo wax ne yàlla daf maa may alquran malakanil qurana tamlikan ya duum bi an na nii xillun wa xibbun wa qadim yàlla daf maa may alquran may gu sax tamlikan yaduum mooy yàlla daf maa may alquran te dootu ko nangu malakanil quraan tamlikan yaduum mooy yàlla daf maa may alquran te dootu ko nangu lu tax bi an na nii naka man kat xillun ab xaritam laa wa xibbun ab soppeem la wa qadim te yàlla moo ma délégué may liggéeykatu yonent bi alayhi salaatu wasalaam kon ki yàlla may alquran te dootu ko nangu ku mu ja may mu may alquran nga am ko te dootoo ko ñàkkati moo tax mu ne yàlla ma may alquran te dootu ko nangu moom mooy ki dalal cheikhul xadim mooy ki dalal cheikh abdul ahad alquran waaye bi mu ko dalalee ba pare jox ko nijaayam sëriñ Hamza sëriñ Hamzatu Jaxate sëriñ Hamzatu Jaxate moom ku ñu xam la ndax mooy ki nga xam ne daa bokk ci mag ñi nga xam ne dañoo taxaw war ak sëñ tubaa xaadimu rasul ba sëñ tubaa bi mu jugee ci géej gi li ëpp ci jaar-jaar yi nga xam ne defoon nañ ko ci géej gi xam ngeen ne sëñ Tuubaa bi muy dem ci géej gi àndut ak kenn mooy li Cheikh Abdoul Ahad radiyallahu anhu daan wax ne fam ba mu ba muy dem ca géej ga fa mu nekkoon ci Gabon ko fekk àndu nekk foo woon ak ku koy ngàbbaluk seeta la mooy ba mu nekkee ca géej ga moom kort moo fa nekkoon dong yàlla rek a doonoon wéttalam xanaa soppee mba alayhi ba ko fa daan fekk si kon bi mu dellu see mbooleem fu mu jaar ci géej gi moom Seexul Xadiim mooy ki ko nettali suñu Xamsatu Jaxate mii bokk na ci ñi nga xam ne tax taxawoon nañu ak Sëriñ Tubaa moo ko Cheikh Mouhamad Lamine Diop Dagana ak Cheikh Mouhamadul Bachir nga xam ne Cheikhul Khadim moo leen daan nettali ñoom ñuy bind looloo tax lépp ci fi Sëñ Tubaa jaar ci géej gi ñun lu luñ ci xam rek ginnaaw yàlla ñoom ñii la ko Sëñ Tubaa nettali kon Cheikh Amsatu Jaxate mii mooy ki nga xam ne moom la ko Sëñ Tubaa Xaadimu Rasuul jox ngir mu jàngal ko alquran Sëñ Tubaa ko dalal waaye jox ko Cheikh Amsatu Jaxate Sëñ Amsatu yi jàngal na ko ab diir waaye boole ko ak doomam moom Sëñ Amsatu ñuy wax Sëñ Abdoulahi Jaxate boo boole ko mook Cheikh Abdoulahi Ahad jox leen nijaayam moom it sëriñ Alsaan Jaxate xam ngeen ne mbokk yi xam ngeen ne loolu Cheikh Abdoulahi Ahad da koo niroole ak sëñ Tubaa Xaadimu Rasuul sëñ Tubaa baayam Mamoor ko dalal waaye jox ko nijaayam sëriñ Bousso bi bi mu ko joxee nijaayam sëriñ Bousso bi sëñ Bousso bi jàngal ko ab diir jox ko nijaayam moom it moom sëñ Bousso bi nijaayam koo xam ne maam la ci sëñ Tubaa Xaadimu Rasuul kon sëñ Tubaa Cheikh Abdoul Ahad bu ñu ne Cheikh Abdoul Ahad day Sëñ Tuubaa Sëñ Tuubaa daa sumbiku ci moom mooy fi Sëñ Tuubaa jaar foofee rek la ko suñu borom jaarale nga xam ne da gis ne moom bàyyam a ko dalal jox ko nijaayam nijaayam ni jox ko nijaayam nga xam ne kon nijaay yi nijaayam moo ko jàngal alxuraan comme ni li li daloon Sëñ Tuubaa ndax Sëñ bàyyam mamoronte salee ko dalal jox ko nijaayam Sëñ Busoo bi Sëñ Busoo bi jox ko nijaayam tafsir Mbàkke Ndumbe muy nijaay yi nijaayam kon loolu day tegtali ne Euh, fi sëñ Tuubaa jaaroon a Cheikh Abdoul Ahad suñu borom tabaraka wa taala barkeel ak dundam moo tax jaaral ne la ko fu mel noonu yi nga xam ne da ngay gis ne bi ko biñ ko joxee sëriñ Alhasan Jaxate yàlla dogal ci diggante boobu la mokkalee alquran xereñe ko lool waaye bi mu ko mokkalee ba xereñe ko wax nañu ne bi mu bindeef kaamilam am nañu ne sëñ Tuubaa Xaadimu Rasuul la ko jox ci 1927 am nañu wax loolu waaye am nañu wax ne it Cheikh Mouhamadul Moustapha Karim magam ji nga xam ne moo njëkk a wuutu baayam moom la jébbal kaamil alquraanam waaye daal ala kulli xaal 1927 bi Sëñ Tuubaa fa euh, wàccee liggéey Cheikh Abdoul Ahad ak mboolem njabootu Sëñ Tuubaa gi tolloon ci jàng Cheikh Mouhamadul Moustapha daf cee dox doxin wu am solo ndax daf leenoo dajale yóbbu leen dëkkam bi ñuy wax tindoo di fala leen yóbbu jël ab jàngalekat bu ñuy wax sëñ Maxtaar Jeng Guyaar yóbbu ko Tindodi boole kook njabootu sëñ Tuubaa gi ngir mu di leen jàngal foofa alquran ak xam-xam waaye di leen tafsiral alquranul karim nga xam ne Cheikh Abdoul bi mu nekkee foofu Tindodi fa la mottalee ay mbo mboolim ay fànni xam-xam yu baree baree bari bari foofu la ko jànge ci sëñ Maxtaar Dieng Guyaar waaye ab diir Cheikh Abdoul Ahad sëriñ Mouhamadul Moustapha jëlee leen foofu indi leen Touba fekk booba. sëriñ Habibullahi Mbàkke mi nga xam ne mooy sëñ Habibu mel mi ñu xam mi dëkk foofii ci Daaru Quddus mi dëkkoon Daarul Quddus te daan jiite ci jumaay sëñ Tuubaa ji Xaadimu Rasuul sëñ Habibu booba mi ngi woon mbul ci kilifteefu Cheikh Mouhamadul Basir nga xam ne Cheikh Mouhamadul Moustapha moo sàkku ci sëñ Basiru mu jox ko sëñ Habibu ngir mu jëlee ko mbul indi ko tuubaa daal di indi yenn ci njabootu sëñ Touba gi jox leen sëñ Habibu moom mu di leen eggaleen njàng mu xam-xam nga xam ne kon bañ fa nekkee tindoo di ab diir ci sëñ Maxtaar Jeng Guyaar après sëñ Abdou daf leenoo jëlee foofu andi leen sëñ sëñ Mouhamadul Moustapha daf leenoo jëlee foofu indi leen Touba jox leen sëñ bu Mbakke ngir mu jàngal leen xam-xam nga xam ne ci foofu def nañ fa ab diir mook sëñ Saalihu sëñ ah, sëñ Abdul Xaadir moom mi ngi woon Gédé mook sëñ Saalihu ak Cheikh Sohaybu ak sëñ Abdou Samad mi nga xam ne Mm, euh, kenn la ci njabootu sëñ tubaa gi ñoom ñoo ñii nga xam ne njabootu sëñ tubaa lañu woon te seeni at néew bi fi sëñ bi di jógee ñoom la Cheikh Abdoul Ahad boole woon jox leen si bi bu ngir mu di leen jàngal nga xam ne jàngale na leen ab biir foofu ci Touba Daarul Xudduus waaye ginnaaw loolu ba yàlla dogal nag wax dëgg Cheikh Abdoul Ahad man alquran manin woo xam ne cee gën a dayoo ndax loolu ci li ciy firnde rek mooy waxtu wu ci nekk boo déggee ni muy firee alquran da ngay xam ne kii ni mu ko déggin wi dafa jéggi dayoo ni muy firee alquran soo ko déggee rek da xam ne kii déggin wi dafa jéggi dayoo am na sax kenn ci kilifa yi turuq suufi yii maanaam tariq tariqa yii ñu xam Sénégal am na kenn ci kilifa yi koo xam ne doon na yéem si Abdoul Ahad ci man gi alquran waaye la ko sëñ bi tontu woon dafa am solo daf ko wax ne ko alquran daal waxi yàlla la te nit nag ku la ko gën a jéggi gën laa dégg la muy wax allahu akbar loolu mooy que ne alquran waxi yàlla la ndekete ki la gën a yégee yàlla moo la gën a dégg alquran ne ko alquran ay wax la te nit nag ku la ko gën a jéggi gën laa dégg la wax kon loolu aw déggin la ci ne ndekete ni mu déggee woon alquran ni la gën a ni la jege woon suñu borom tabaraka wa taala waaye ab diir bu gàtt ci ndigalul Cheikh Mouhamadul Moustapha ci ndigalul Cheikh Mouhamadul Moustapha ci la sanci kër googu ñuy wax Daaru Rahman muy Daaru Naar ci atum bi muy am 19 ans bi bi mu jàngee ci Sëñ ba noppi ci la ko Cheikh Mouhamadul Moustapha jox ndigal ci mu sanci kër googu ñuy wax Daaru Rahman caatu 1932 Daaru Naar mooy fii ñuy wax kër Sëñ bu tey jii fii la Sëñ Tuubaa daan dalal gan ñi nga xam ne ay naar lañ naari gànnaar yi ko daan gane si moom Sëñ Tuubaa Xaadimu Rasuul foofu la daan dalal bi fi sëñ bi jugee nag 27 bañ teg ci juróomi at ci la Cheikh Abdoul Ahad jox ndigal jot ndigal ci Sëñ Mouhamadul Moustapha ngir sañ ci kër googu ñuy wax Daaru Rahman nga xam ne kër googu euh, diir bu gàtt la fa def. Cheikh Mouhamadul Moustapha jox ko ndigal ci mu sanc ay tool fi ñuy wax kàddu balloo ji foofay sanc na fa ay tool lég liggéey fa ab diir maanaam diggante 32 ba 1935 foofa la nekkoon di fa liggéeyal yàlla waaye ci 1935 ci la ko Cheikh Cheikh Mouhamadul Moustapha jox ndigal it ci mu sanc dëkk fi ñuy wax gelaw ngal ngir am foofa ay tool ginnaaw boobu it ci la sanc Kàbbu Gay 1936 1936 Cheikh Abdoul Ahad Cheikh Mouhamadul Moustapha gane si na ko ci dëkk bi ñuy wax Kàbbu Gay ci la ko jox ndigal ci mu sañ ci dëkk bi ñuy wax Baraan Baraan Jàkk waaye ànd ak dëkk yooyu muy sañc dangay gis ne diggante bi mu noppeem njàng ak diggante 1945 bi fi sëñ Mouhamadul Moustapha di jóge diggante boobu lim fi jaar ci ay dëkk te dëkk bu ci nekk leen rek a ko fa yóbbu woon mooy liggéeyal fa yàlla jaamu fa yàlla waaye liggéey fa liggéey bu am solo boo xam ne dana ko mën a jébbal sëñ Tuubaa ci liggéey bi nga xam ne bi ko Cheikh Mouhamadul Moustapha ganeesee dëkk boobu ñuy wax baran baranjak Cheikh Mouhamadul Moustapha Cheikh ma Abdoul Ahad jébbal na ko fa addiyee yoo xam ne ci am mbayam la woon woo xamante ni moom moo ko bay ci dëkk yooyu euh, ba bi nga xam ne 1945 juin 1945 Cheikh Mouhamadul Moustapha wàcc na liggéey Cheikh Mouhamadul Moustapha wàcc na liggéey nga xam ne kon da ngay gis ne Cheikh Abdoul Ahad radiyallahu anhu ci Cheikh Mouhamadul Moustapha ginnaaw bi fi Serigne Touba jugee ci ndigalul Cheikh Mouhamadul Moustapha la doon dox nga xam ne mboolem dëkk yi nga xam ne sañc na ko ci ndigalul Cheikh Mouhamadul Moustapha la ko sancee te fu mu ci man a nekk it Cheikh Mouhamadul Moustapha. bu ko soxlaa woo ko su ko bëggee liggéeyloo liggéeyloo ko su ko ganesee lu mu yor dana ko dajale jox ko ko su ko ganesee wutit su saa yu nawet wàccee mboolem lu mu liggéey dana ko dajale yit ko Cheikh Mouhamadul Moustapha mu def ko ci jumaa ji noonu la àndee ak Cheikh Mouhamadul Moustapha ba 1945 yàlla dogal Cheikh Mouhamadul Moustapha wuyu ji boroomam waaye mu ànd ak Cheikh Mouhamadul Fadal Cheikh Mouhamadul Fadal Cheikh Abdoul Ahad da koo bëggoon ba nga xam ne. daawu ko daawut jaar ci aw turam ñiñ ko tuddee sax ñi nga xam ne ay turandoo Cheikh Mouhamadul Fadal lañ sama mag ju baax ji rekk la ko daan woowee moom moo tax képp kuñ ko tuddee sax moom daawut jaar ci saw nga xam ne bi fi Cheikh Mouhamadul Moustapha jóge mu topp Cheikh Mouhamadul Fadal waaye ni mu ko toppee woon mooy ni mu toppee woon Cheikh Mouhamadul Moustapha ci déggoo ak moom di jëfee ay ndigalam di bàyyi ay tereem fépp foo xam ne Cheikh Abdoul Ahad yendu na fa ci ndigalu Cheikh Mouhamed Fadal la yendoo foo xam ne fanaan na fay ci ndigalu Cheikh Mouhamed Fadal la fa fanaane Cheikh Abdoul Ahad bi fi Cheikh Mouhamadul Fadal di nekk ab daayira sax mësu koo nangoo sos ab sax mësu koo nangu seen addiya ab daayira sax mësta nangu ñu ñëw ñu def mbooloo dikk di ko siyaare ji lu may ne dafa ànd ak ñoom yóbbu leen ci Cheikh Mouhamadul Fadal loolu mooy ak toppe nga xam ne léegi léeg sax nag li jamono xew li jam li xew ci jamono mooy léeg-léeg bu fekkente ni nit dafay nekk ak doomi baayam da ngay gis bu wootee fee yow ngay lang-langal fee am mbooloo saa yu tàntee fee yow nga tànt ca wet ga mu ne ci boppam yow nga ne ci sa bopp waaye ñoom njabootu sëñ tubaa gi daa wu ñu doxee noonu niñ daan doxee mooy ku fi nekk dañuy jàpp ne yow yaa fi sëñ tubaa lépp ci sa loxo la nekk nga xam ne ñoom seen lépp jënn jëmm lañ ko bàyyee woon mooy ki nga xam ne moo fi sëñ tubaa ci noonu la nekk ànd ak Cheikh Mouhamadul Fadal àndin wu rafet ba ci liggéey jumaa ji Cheikh Abdoul Ahad liggéey ci liggéey bu rëy rëy rëy rëy jàppale ci Cheikh Mouhamadul Fadal ba 1963 bi bi Cheikh Mouhamadul Fadal di ibbi jumaa ji ñoom ñaar ñoo ko ànd nga xam ne loolu day wane ñoom njabootu Sëñ Tuubaa gi benn lañ waaye liggéey bi nga xam ne moom la Sëñ Tuubaa doon liggéeyloo mboolem njabootam gi ñoom ñoo ko àndoon bi yàlla dogalee Cheikh Abdoul Cheikh Mouhamadul Fadel nag jóge fi 1968 1969 ci la door a jege si ci dëkk bi sañ ci dëkk bu ñuy wax Touba Belal Touba Belal ku ko xam mi ngi ci wetu gànnaar ci Touba mooy toolam yi nga xam ne mooy fi gën a won a jege ginnaaw bi nga xam ne sañ sañcoon na Darou Salaam Bourguiba Bourguiba nga Bourguibark nga xam ne ab dëkk la boo xam ne Cheikh Abdoul Ahad liggéey na fa liggéey yu am solo am solo am solo indi ko ci jumaa ji ci. kilifteeku Cheikh Mouhamadul faadal waaye dëkk boobu ñuy wax Touba Belal bi fii Cheikh Mouhamadul faadal nekkee jóge ci la ko sanc waaye bi mu ko sancee nag lan la fa doon def mooy ngir yaatalee fa liggéeyu Sëñ Touba bi ndax xam ngeen ne Cheikh Abdoul Ahad bi fii Cheikh Mouhamadul Fadal jóge yàlla dogal na mooy ki nga xam ne mooy ñetteelu ki wut Sëñ Touba ci xilaafa gi bi yàlla dogalee mu wutu Sëñ Touba dafa woote ab woote daal ne na ma njëkk na ma ñëpp fekk tuubaa ngir lan mu dal di tàmbali nag mission bi muy liggéey bi nga xam ne moom la ko sëñ Touba doon liggéeyloo bi mbooloo mi dikkee lan la leen wax mooy dafa wax ne de maa ngi maa ngi maa ngi leen di jaale li ñu bokk muy kilifa gi nga xam ne moom lañu yàlla booleel muy Cheikh Mouhamadul Fadal yàlla dogal mu jiitu te wuutu woon sëñ tubaa ak liggéey bu rëy bi nga xam ne liggéey la ko sëñ tubaa waaye nag damaa bëgg damaa bëgg ñu xam ne ginnaaw Cheikh Mouhamadul Fadal suñu borom nattoon na ma ne maa fi nekk maa ngi xam le ne mboolem loo xam ne Cheikh Mouhamadul Fadal bàyyi na ko fi dama ko yokk waaye duma ko wàññi man nag fi ma nekk mooy li yàlla bëgg yonent bi bëgg ko sëñ tubaa bëgg ko maa ngi leen ci woo di leen wax ne mboolem koo xam ne noppi nga ngir ànd ko ak man bismillah nañ ko wéyal ci la waxee woon ne li yàlla bëgg yonent bi bëgg ko sëñ Tuubaa bëgg ko gëruma ci sama bakkan waaye seeni seeni sama bakkan bii laa ci gar la waxoon li yàlla bëgg yonent bi bëgg ko sëñ Tuubaa ko ci dëkk bi sama bakkan bii laa ci gar mooy ak lu mën a xew li sëñ Tuubaa bëgg moom day am ak nu mu mën a ame kon loolu mooy tegtale ne ñoom njabootu sëñ tubaa gi boo xoolee gis nga bi mu dikkee wut sëñ tubaa moom mboolem yi nga xam ne liggéeyal na ko sëñ tubaa ci ay travaux boo xoolee lépp da xam ne lii lu yàlla gërëm la ndax bi mu dikkee wuutu fi sëñ tubaa liggéeyu sëñ tubaa bii mooy jumaa ji yi nga xam ne Cheikh Mouhamadul Fadal moom moo ko liggéeyoon bi mu dikkee ngir yee salaat jumaa ji rek un milliard cinq cent millions la ci def un milliard cinq cent million ci jan jamono jamono yi mille neuf cent nga xam ne jamono booba nga xam ne jamono booba Cheikh Mouhamadou Fadel jumaa ji bi mu egg ci mille neuf cent cent millions moo ci demoon six cent millions et quelques nga xam ne dangay gis ne bi fi Cheikh Abdoul Ahad toogee volonté bi mu am moo tax mu ne damaa bëgg a rafetalaat jumaa ji waaye nag yokkaat ko yokk bu rëy yokk boobu un milliard cinq cent millions la ci def waaye loolu di benn ci yi nga xam ne la génn ko Sëñ Tubaa nga xam ne bi mu dikkee moom si Abdul Ahad moo yeesalaat barabu Sëñ Tubaa bii waaye yëmu ci xu xutba jumaa ji xutba yi moo moo ko pentiraat lu jiitu nga xam ne lu jiitu mu indi yokk yi moom jumaa ji ci boppam la njëkk rafetalaat wëralewaat ko ab miir warale ko ay làmp fexe tali bi accès ci moom waaye fexe ba yokkaat yokkub jumaa ji nga xam ne personnel ba ci daan jullee daa fexe ba defaraat ay yokk yoo xamante ni la sëñ Mouhamadou Fadel defoon laalaatu ko waaye dafa defaat ay yokk yoo xam ne ñoo bootu ci jumaa ji nga xam ne bu jumaa ji feesee des na mën a jullee ji foofa loolu doon benn nga xam ne xoolal forage yi am na ci forage bu ñuy wax forage su baylaat moo nekk fii ci yoonu Touba belal bi nga xam ne xoolal si am bi mu bi mu fi toogee mbooleem yi nga xam ne soxlay dëkk bi la la njëkka a réglé dafa fexe ba courant bi fu mu waroon a egg egg na fa ndox mi it fu mu waroon a egg egg na fa loolu looloo tax président Abdou Diouf Abdou juuf bi yàlla dogalee muy xëccoo réew mi dikk ci Cheikh Abdoul Ahad Cheikh Abdoul Ahad bi mu ko bëggee fal lii la waxoon dafa woo dafa woote ne nañ ma ko teerule bi mu wootee nañ ma ko teerulee ba mbooloo mi dajee dafa bilan la sëñ Abdou Lahad bilan la pour la la la indi dafa wax ne liggéey bi may liggéeyal sëñ Tubaa moom mii kat noppi na ngir jàppale ma ci ndax kat bi mu fi toogee léegi defal na ma fi nangam ci forage yokkal na ma fi nangami kilomètre ci ay tëli waaye defal na ma fi nangam yokkal na ma nangam ci ay kilowatt ci ay ci ci ay kilomètre ci courant waaye defal na ma fi nangam ak nangam ak nangam. lii moo tax nag ma xam ne képp ku ko moyale saw kart war nga sëñ tubaa keroog lii la Cheikh Abdou Lahad waxoon nga xam ne position la jël bu clair mooy que ne Abdou juuf lii mu def lépp defal ko Abdou Lahad waaye sëñ Tuubaa la ko defal kon képp ku ko moyale saw carte war nga sëñ tubaa daldi ne su ko ñëpp wanee ginnaaw bañ koo woteel su jaree ñu def xobu garab yi ay carte ñu woteel ko it jar na ko ndax mu ndax mu jotaat ci réew mi ndax lim naa la liggéeyal sëñ tubaab faaw da koy àggale xoolal si Abdou Lahad yi mu jëloon ci Abdou Diouf nga xam ne kon moom ba muy wax ne Abdou juuf nañ ko wooteel xoolul ay intérêt personnel am waaye intérêt yi dëkk bi la doon xool loolu benn la ci ñaareel mooy nga gis ne nga gis ne li ñuy wax kër mag moom li ñuy wax kër mag moom nga xam ne xoolal mbooleem njabootu sëñ tubaa gi bi Cheikh Abdoul Ahad toogee dafa fexe ba doomi sëñ tubaa yu ci nekk loolu sax si Cheikh Mahamadou Fadal la commencé woon ci loo ci sib dëkk bi la fexe ba doomi sëñ tubaa ju ci nekk am kër waaye miir yooyu nga xam ne ñoom lañ ko miiree mu dëppook jamono moom Cheikh Abdoul Ahad moo ànd ak alhaaji a Kebe def ca la man woo alhaaji Njuga Kebe mu ànd ak moom jàppale ko ci liggéey bi mboolem kër yëpp ñu miiree ko miir yu mucc ayib képp ku ci yittewoo jàkk mu fexee ñu defal la ko ba ci oto bu ñuy war yii nga xam ne liñ naan dayo bi nga xam ne moom la njabootu Sëñ Tuubaa gi am dëgg la xamoon nañ ko lu ko jiitu waaye Cheikh Abdoul Ahad bi mu dikkee moom moo leen gën a jox seen wàccuwaay moom moo leen moo leen gën a xamal nit ñi moom moo war a moo leen gën a xamal ni nit ñi ñii kat dañoo war a barke lu ci ci ñoom waaye xoolal kër Sëñ tubaay gi nga xam ne moom moo fi nekk nga xam ne moom la ñuy wax kër mag moom muy kër gi nga xam ne moo nekk ci sowu jumaa ji ci ak xilaafaam la ko def nu mu ko defee mooy bi mu dikkee ba def yi nga xam ne moo ko jiitu ba noppi dafa xool ne kat ab dëkk suñ fa dikkee ne ana këru borom dëkk ba mën mënee soto joxoñ fenn loola jaaduwut moo tax mu ne dafa bëgg a defal Sëñ Tuubaa kër këru wàccuwaay goo xam ne mboolem ku fi Sëñ Tuubaa yaa koy yilif waaye nag gan gu Sëñ Tuubaa amit des na ko ci mën a dalal looloo tax kër gii nga xam ne moom la def kër Sëñ Tuubaa moomeelu Cheikh Mouhamadul Bachir la woon ke Sëñ Bachir la woon waaye waxtaan ak njabootu Cheikh Mouhamadul Bachir ñoom ñoo ko jox kër googi àddiya keroog bi mu koy def Cheikh Mouhamad sëñ Moustapha Basiru la woo sëñ Modou Mamoun bu Daaru Salaam alhaaji Jili Mbay ak sëñ Modou Badar Diop ak ñañ ko àndaloon ñu dikk mu ne leen kër gii kat waxtaan naa njabootu Cheikh Mouhamadul Bachir jox nañ ma ko àddiyee sëñ Tubaa dama koo bëgg a def kër siñ tubaa kër goo xam ne ci turu siñ tubaa lay nekk nga xam ne Sëñ Abdu Lahat xam gém xam àdduna moo tax kër gi dafa fexe ba kayit yi Sëñ tubaa moo ci nekk kenn du ko dond kenn du ko jaay te kenn du ko saraxe kenn du ko abale kër la goo xam ne kër Sëñ Tuubaa la képp ku fi Sëñ tubaa yaa ko yilif loolu mooy li nekk ci kayit yi waaye ñii la ko àndaloon ñii la woowoon jox leen ndigal ci ñu ànd ko liggéeyal ko liggéey ko ak moom nga xam ne kër gi ay bâtiment la ko def woo taalibe yi sëñ tubaay nga xam ne lii nga xam ne moom la ñuy wax jaayante moom Mouhamadul Fadel doon na ko def ci jumaa ji daan na woote ay sas Cheikh Mouhamadul Fadel nii la doon liggéeyee jumaa ji mooy da def ñuy su nawet bi jotee mu joxe ndigal ni ne na ñëpp dem ci tool yi ba pare juboo gi mu juboo woon ak boroomam moo tax lii Cheikh Mouhamadul Fadel bi mu fiy nekk ma mosoo dégg nawet nawet bu gàllu guusi dafa juboo woon ak boroomam ba nawet bu jot moom baatin la ciy doxee nawet bi day baax su nawet bi jeexee mu woote ne ñëw leen ñu ànd liggéeyal Sëñ Tuubaa liggéeyub Sëñ Tuubaa bi moom la mu bayoon mu indi ko la keneen ak keneen ak bayoon andi seeni i àddiyee ñu dajale ko def ci jumaa ji su jeexee ñu xaar déwén Cheikh Abdoul Ahad nag bi mu dikkee stratégie bi mu indi mooy tobbi ay sas mooy bi mu dikkee danaan ah moom day yëkkati am na ci gis nga jumaa ji yokku jumaa ji biñ ko bi mu koy woote dafa woo mbooloo mi ñu dikk mu ne leen liggéey bi kat biñ ko xaymaa ci architecte bi li mu wax mooy un milliard cinq cent million moo ko war a def man Abdoul Ahad nag sa soo naa ci deux millions deux cent cinquante millions daal yëkkati xaaj bi daal di teg ci taabal ji daal ne ah bu déwénee incha allahu taala bu ñu màggalee tubaab ba pare danaa joxe waat beneen xaaj bi nga xam ne moom Sëñ Abdou Lahad moom noonu la doon doxee bu sasee day wax ne man kat sasoo naa ci nangam bi bu ne kum gis ne man nga nangam mu ne la saw sas mooy nangam kum gis ne mënoo mënuñu laa jox aw sas dalay bàyyi ak sa sagu nga dem toppatoo saw sas yow andi ba ñu dajale ko ba yàlla dogal mu mat diir bu gàtt ñu liggéey ci liñ bëgg a liggéey noonu la def kër Sëñ Tuubaa gi ba mu àgg moom Sëñ Abdul Ahad nii ma wax nii ni la liggéeyee yokkub jumaa ji waaye ni la liggéeyee kër Sëñ Tuubaa gi ba mu àgg waaye université bii nga xam ne moom la Cheikh Mouhamadul Mountakha di eggale nii la ko Sëñ Abdul Ahad commencé woon moom it ba mu koy door a tàmbali moo ko miire tàmbalee ko ci def ca daara yi alquran ginnaaw bi euh, ak euh, doxin wa moo tax Sëñ Mouhamadul Mountakha bi mu dikkee jëlee ko fa mu nekkoon yóbbu ko ci beneen niveau bu gën a kawe waaye Cheikh Abdoul Ahad moo ko tàmbali woon miire ko moo ko tàmbali woon miire ko bi mu dikkee bi sëñ Cheikh nattee dëkk bi fa dëkk ba yamoon moom Cheikh Abdoul Ahad dafa nattaat ay kilomètres dolli ko ci ngir tubaa gën a yaatu nga xam ne corniche bu njëkk bi Cheikh Abdoul Ahad daanaka nattaat na lu jege ñaari corniche dolli ci université bii noonu la ko doxalee noonu la ko tàmbalee gis nga que sëñ Touba gii bi mu noppee ñu meublé ko mboolem gani Sëñ Tuubaa yi fu ñu mën a jóge bu ñu dikkee fala leen dalal waaye daari kaamil nga xam ne dafa toog ba mu yàgg mu xalaat ne gis na ne kat Sëñ lim li bind bari na waaye nag dajaloo gi des na te mu gis ne alquranul karim bi mu wàccee yonent ci aleyhi salaatu wasalaam aleyhi salaatu jóge fi Aboubacar wuutu ko ñu dem cib xare ñu faat ci ñu ëpp ñu ëpp ca xare ca ña ko mokkaloon ci la saxaaba yi daje daal di xalaat ni alquran ji buñ ko dajalee wut kat suñ faatee mbooleem ñi nga xam ne ñoo ko mokkaloon su boobaa alquran mën naa manqué wala sax dootul amati moo tax ñu ne woon nañ ko tee ñoo dajale alquran ci benn kaamil benn téere boo xam ne lu àdduna yàgg yàgg yàgg yàgg dafay daj ci lañ ci waxtaan ak Seydina Abu Bakar mu joxe woon ci ndigal lii la Cheikh Abdou xalaat moo tax bi mu wutoo Sëñ Tubaa mu xalaat ne dafa war a dajale mbindum Sëñ Tubaa mi nan la koy dajalee mooy xasaayit xasaayit Cheikhul Xadim yi nga xam ne moom la Sëriñ Tuubaa taalif mboolem lu ci war a génn te man cee génn moom si Abdou Lahad dafa ko dajale bindulu ko dénkaan ak ay tomb yi nga xam ne Sëriñ Tuubaa bindoon na defoon na ko moom it mu bind ko waaye it jënd ay machine imprimante nga xam ne bi mu ko binduloo ci mbindum loxo daa xool ci dëkk bi ñi nga xam ne ay tut tànk lañ sawar nañ te am nañ jotuk mën a bind moo dajale leen ci këram moom Cheikh Abdou Lahad bindu loo leen ay kaamili alquran alquran ci la tàmbalee waaye bind loo leen it ay xasaayit waaye bind loo leen it ay ndénkaan yi nga xam ne Sëñ Tuubaa bindu ko mën naa cee tudd rek ak Cheikh Abdou Lahad mi nga xam ne doomi Sëñ Suhaybu la mi bokkal lépp bokk na ci ñi nga xam ne majmuuca wa wasaaya yi nga xam ne mooy téere bi nga xam ne léeg-léeg moom lay indi di ci de fàttali waxtaan yi nga xam ne Sëñ Tuubaa waxtaanee na ko moom Cheikh Abdou Lahad mii moo ko dajale joxoon ko. Cheikh Abdou Lahad moom sëñ Souhaïbou mu bindoon ko mbindum loxo moom Cheikh Abdou Lahad mu móolu ko mu móolu ko xoolal Cheikh Abdou Lahad farlu gi mu def ay machine imprimante la dem jëndi Europe Asie fu mu xam ne am na matériel bu baax nga xam ne wax nañu ne machine imprimante yam doon jënd jënd na juróom benni machine imprimante yoo xam ne benn bu ci nekk mi ngi ko jëndee 6 million francs CFA ca jamono jooja machine bu mag bi muy machine yu ndaw yi bu mag bi nga xam ne moo ci gën a mag mi ngi ko jëndee 15 millions bi mu demee ba nga xam ne gis na ne machine yi ak mbind mi dem na ba dajaloo këram te na ne xajatul ci kër gi moom ak maanaam kër gi ay dëkku la waaye machine yi ak mbind mi ni ñuy jaxasoo ak nit ñi dema dem dem naa dem ba xalaat ne ndax jotul ñu wutalee ko barabu boppam boo xam ne fa la gën a mën a ñoŋe ci la xalaat ci kër gii nga xam ne moo doonoon kër Sëñ Suhaybu bu nekkoon ci penku jumaa ji mu taxawloo woon ak kër Sëñ Abdu Xaadir ci la ko jox Sëñ Suhaybu bu ci la ci la ko si ci la ko ko Sëñ Suhaybu bu jox moom kër googu moom la def daaray kaamil waaye kër googu it gis nga bi mu koy tàmbali architecte bi mu ci waxoon jëmmi architecte bi rek 50 millions lañ ko waroon a fay waaye ci ni muy doxalee moom si Abdul Ahad ni ko yàlla dimbalee ni yàlla ubbee am xelam ci ni mu xamee organisation moo tax gis nga fii mu ne nam doon def rek la ko nam daa def rek la ko def mooy moom day yëkkati lim man teg ci taabul ji daal di ne man Abdou Lahad lii mooy sama sos daal di ne mbooleem taalibi Sëriñ Tuubaa yi woo naa leen nag ñëw leen ànd man moo tax architecte bi rek 50 millions yi ñu ko a fay bi mu gisee ñi taalibe yi di joxe moom ci boppam lañ ko waroon fay da koo far joxe dafa lañ ko waroon a fay daf koo jël dugal ko ci liggéey bi ngir def ko addiya ngir ñu boole ko ci liggéey bi nga xam ne kon loolu ay liggéey la yu am solo yoo xam ne ak Cheikh Abdoul Ahad defal na ko sëñ Touba nga xam ne kon boo ne yokkub jumaa ji ñu ne Cheikh Abdoul Ahad la soo ne forage yi nekk Touba yi ci yëpp Cheikh Ahad la nga xam ne soone ne université bi Cheikh Abdoul Ahad la waaye soo ne soo université bi ñu ne Cheikh Abdoul la waaye soo ne kër man moom ñu ne Cheikh Abdoul Ahad la waaye soone ne daare kaamil ne Cheikh Abdoul Ahad la waaye li duuf ci nag yu daa xaji doowut ci cin li xam naa ne euh, waxtu wi dam na ma waaye boo xoolee ay xitaabaatam maanaam ay waxtaanam yi nga xam ne moo ngi koy waxtaan ci kan mooy sëñ Tuubaa waaye ci njàngaleem alquran njàngale mu leer mi nga xam ne moom la ko yàlla defal fasaxatu lisaan lépp day dellu ci njëlbeen ki li ma waxoon rek mooy li mu waxoon mooy alquran waxi yàlla la te nit na ku la ko gën a jege gën laa dégg la muy wax mooy dégg jege gi mu jege woon yàlla moo tax mu déggoon alquran moo tax mu déggoon euh, waxi suñu borom tabaraka wa taala nga xam ne daaree kaamil ji wala boog yokki jumaa ji mi ngi ko tàmbal ci benn at la ko liggéey ci ñaari at la ko liggéey wala benn at ndax 87 la ko commencé 88 mu noppi ci 1 milliard 500 millions loolu day wane ne force bi nga xam ne murit gi am na ko yoonu murit am na ko waaye volonté bi nga xam ne Cheikh Abdou Lahad am na ko xam naa ne mi ngi faat moom Cheikh Abdou Lahad mi ngi wuyu ji boroomam tabaraka wa taala ci atum 1989 la wuyu ji boroomam tabaraka wa taala ñu ngi ñaan sunu borom tabaraka ko taala fayal ñu ko te li nga xam ne liggéeyal na ko sëñ tubaa waaye liggéey bu réy bi nga xam ne moom la def nag mu gën a am solo te waxtu wi mayuma ma ma man cee àgg mooy li nga xam ne moo nekkoon Touba nga xam ne Touba ca Touba ju njëkk ja mboolem li ñuy def ci yeneen dëkk yi ci dëkki yi moom lañ fay def Touba bu dañ fa daan dañ fa daan naan dañ fa daan def nangam ak nangam ak nangam dañ fa sol lu bon dañ fa daan tëgg waaye Cheikh Abdou Lahad ci déggoo gi mu déggoo président Abdou Diouf moo tax bi mu ko bëggee dindi dafa wax président Abdou Diouf mu indil ko gendarmerie gendarmerie moo dikk àndaale ay këlbu ay dawkat ak mboolem jumtukaay yi ñu mën a am ngir mën faa jëlee loolu ci atum 1880 jàpp vingt 81 nga xam ne lettre ba mu bindoon wax ci lam ca waxoon jaarale ko ci Cheikh Abdoul Khadir jox ko Sëñ Chouaib jox ko Sëñ Saliou mboolem doomi Sëñ Tuubaa ya fa nekk ya fi nekkoon ñoom ñëpp ñu signé ko lettre boobu layut gouverneur moom moo dem président présidentiel moom moo dem euh, moom moo dem palais lettre boobu moom la ñu signé ba nga xam ne Touba moom daanaka mën naa mën naa ko tuddee statut spécial mooy dëkk boo xam ne mboolem lu am ci dëkk taax yi moom walaa ba la tudd foofu xam naa foofu la ñuy tàggatoo rek yéen a ngi doon ànd ak seen émission keppaaru mag ñi doon amee fii ci seen télé Rewmi TV ngeen di ko topp ci canal 108 man koo topp it ci Rewmi FM 97.5 seen mbokk sëñ Baara Mbàkke ngeen ci àndaloon ñu doon fàttaliku jàmbaari lislaam Cheikh Abdoul Ahad mi nga xam ne kenn la ci njabootu sëñ Touba liggéey bu rëy bi nga xam ne léggéey na ko sëñ Touba li duuf ci nag bi daa xajandoowut ci cin li waaye lu ci jub yàlla la lu ci dëng matadi doomu aadama la in uridu illa al islaaha mastataatu wa ma tawfiqiya ila billah wa aleykum assalaam wa rahmatullahi wa barakatuhu Ahmad Souleymane bi sarfi almasiyaati kay ma taqoo da simaamin lirrasiyaati adan li tasdaada xalbi uzna bahjatiha wa wajaxat li hadaaya bilmabaraati amsat tutayibu nafsi kay abilu laha waawalat mayla xalbi بالهديات وخاطبتني بما يدعو بغذبتها